TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer dañuy convoquer réunion nit ñi tardé ay une heure de temps te nag liggéey màggal bi commencé moi je plus le temps mun ñëw foofu ñu calé benn réunion ñu bëgg ko def pour deux heures de temps les gens ne viennent pas à retard moi je passe à autre chose autre chose à faire donc euh, te bu ñu fi jógee rek lu may def mooy la plupart des de service je les reçois après un à un parce que bu ci nekk lu ñu fi wax bu ñu defee ba pare dañu recevoir chef de service bi ñëw ñu won ko lii dañu capitaliser est-ce que c'est fidèle par rapport ak lu ñu waxoon kon donc liggéey bi dafay accélérer dëgg nañu en tout cas dinañu impliquer un peu université bu Bambey ci plan de circulation bi euh, service urbanisme tam ndax def na fi benn offre nee ñoom am nañu technicité ci wàllu circulation ak aussi vraiment boole ci gën ci dëgëral euh, comité d'organisation pour que donc seen xalaat bi yëpp ci kii bi nii parce que wax ngeen fi lu am solo dinañ ko jël en charge mooy donc ngaabu bi donc euh, loolu am na solo ah, beneen bi mooy réunion d'évaluation bu ngeen boo xam ne ah dafa mel ni euh, taxaw na pour que léegi incha allah chaque fois bu màggal passé ah ñun ñëpp ñu am courage dem ñëw toogaat donc def benn évaluation approfondie mu bind ministère yëpp donc muy loolu euh, ci autoroute Ila Touba gànnaaw yeneen disposition yu gars yi jëloon amoon na sax ay gendarmerie ak police yu ñu signalé woon ak wàllu charrette ak yooyu donc euh, signalisation bi waaye ñu wax aussi nit ñu bàyyi xel ci fluidité bi ci péage balaa effort yu nit ñi dëf yëpp parce que affaire bi dafay gaaw nit ñi ñëw ñu ñëw donc ci péage bi su fekkee foofu tam ubbiwuñu ko. mun na andi ay jafe-jafe incha allah kon loolu tam bay nañ ci xel bu baax euh, mais dafa mel ni man lu ma lu ma ber nii mooy loo xam ne tam dafay nécessité mooy lu ñuy wax alerte donc yii wax nañ ko waaye wàllu ndox ci ñaari dimension ndox boo xam ne dañ koy jëfandikoo di sangu di naan ak yooyu donc pour mu ndox bi mu doy ndox bi tam mu ànd ak mu sell qualité bu baax ah ndox bi tam bon mu law atteindre fépp distribution dans l' espace waaye itam dans le temps maanaam du tey mu am du suba du am ay effet yooyu donc muy ñeenti dimension ci wàllu premier bi ñaareel bi mooy ndox ci nawet la nekk incha allah donc walla fin nawet bi donc nit ñi bàyyi xel ci affaire stagnation inondation donc ak aussi mbalit bi parce que comme UCG nu mu ko waxee mbalit bu tasee ak ndox bu commencé yàgg rek mu na mu indi li yeneen affaire encore kon loolu dafay nekk alerte ba nga xam ne dina nécessité donc pour mise en œuvre plan d'action donc bu hydraulique ak bu assainissement incha allah euh, beneen bi tam yàq la monsieur wax na ko fii muy problème éclairage public incha allah donc lu dina gàtt lu gàtt gàtt dinañu woote rek ñu ñu toog vraiment comme ni ma koy waxee mënuñu toog. chaque fois ñuy am benn mur mu ñu koy mbëkk di dellusiwaat donc ñu jéem a trouver donc ensemble bu ñu defee suñu xalaat ñun ñëpp rek je crois que ñu am début de solution donc euh, euh, voilà lu ma loo xam ne bëggoon naa ko wax donc encore di remercier monsieur le bu baax monsieur le maire bu Touba Mosquée ndax gannaaw donc salle bi ñu abal ak commodité yi ak yëpp donc am na yeneen yoo xam ne séeréer yi bëgg nañ ko lool ak xalpulaar yi vraiment affaire yi mat na <laughs> jaar na ma wax ko ci turu ñëpp vraiment jërëjëf yàlla leen yàlla fay euh, man de man lu ma mën a wax te def naa maa ngi koy wax tam ci tour autorité administrative yi toog fii yëpp di ko wax tam ci tour chef de service yu fi toog force de défense de sécurité donc di ko wax si seen turu ñoom ñëpp en cas ñun ñu ànd wàllu état mooy liggéey bi suñu liggéey donc te incha allah comité d' organisation euh, dinañ ci ànd ak ñun ak yéen ak engagement donc ñu kii ko ci ci euh, ça fait deux réunions yoo xam ne damay fàttali benn affaire boo xam ne boobu daaw la am ci màggal 2018 bés bu nekk nga jàng euh, maa ngi doon wax docteur Dieng bu jéemoom ma ne ko daaw bi ñuy liggéey fii euh, plan bu ñu def kii affaire santé bi yépp xam nga ne dafa mel ni cotisation pour mutuelle mutuelle boo ci cotiser léeg-léeg da ngay ñaan yow li nga fay cotiser noonu yow bul ko jëriñoo <laughs> affaire santé noonu lay demee waaye daaw nuñ ko liggéeyee ba pare defe naa man suma waa sama waa kër yi ñoo si njëkk am problème noonu si ci kenn moo xam ne dañ ko hospitalisé trois jours ñetti fan hôpital bu dégg bëccëg way way donc pour dire toujours que liggéey bu ñu koy def nañ ko def donc lañ ci yoon yoon de waaw donc nit ñi dañuy xalaat toujours que keneen kële la kon waaw kon vraiment donc loolu di ko waxaat pour ñu partager ko vraiment ñu engagé wu ci wàll yi yëpp ñu liggéey te am na lenn loo xam ne dafay nekk fierté Sénégal comme ni ma ko waxee comme volume yi may wax nii cinq volumes yi ñuy wax noonu mais am na ci lenn loo xam ne donc euh, bu nit ñi bind sa histoire bu nit bu fekkee moom moo lay waxal un peuple waaye dafa mel ni ñu ne koo xam ne sa noon boo xam ne nga jóg lu matin de bonne heure nga ne ñu ne moom moo war a euh, sëlëm dina la sëlëm de waaye laas yi ak yëpp dina ko ko bàyyi <laughs> voilà donc di di di jeexal xëy na donc ci difficulté yi beneen bi mooy difficulté toujours dafay am jafe-jafe waaye nañu communiquer on a qu'à communiquer sur les difficultés ñu affronter leen ensemble incha allah ak dana dañuy baax donc vraiment sëriñ bi ngeen ñaanal ñu encore vraiment taxawaay bi gën dëgër donc ci lu ñu bokk donc euh, ñu réussir ko ensemble incha allah jërëjëf wasalaam. voilà donc euh, aujourd'hui euh, nous nous sommes réunis aujourd'hui ensemble donc les services techniques de l'État mais aussi avec les sociétés concessionnaires les forces de défense et de sécurité donc tous donc ensemble. avec euh, la, euh, la, commune de Touba Mosquée, la commune aussi de Mbaké, en euh, donc, partenariat avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, donc pour un CDD, un comité départemental de développement, consacré à la préparation de l'édition 2019 du Magal, du Grand Magal de Touba. Donc en gros, donc, on a discuté de toutes les questions, depuis la sécurité, donc euh, stricto donc en passant par la santé, l'hygiène, Donc, en tout cas, tout ce qui touche euh, le cadre de vie, l'hygiène, mais aussi les questions d'approvisionnement, de ravitaillement et même de circulation de façon globale. Donc, en résumé, tout simplement, euh, donc, il y a un certain nombre de points euh, qui ont ravi la vedette, tels que donc, les points relatifs euh, à la circulation, notamment les laissés-passer, les ordres de mission. Euh, d'autre part, le plan de circulation, comme vous l'avez dit, mais aussi la nécessité de tenir une évaluation donc, au tout de suite le Grand Magal, donc avec tous les acteurs, pouvoir évaluer donc ce que nous avons fait et donc apprendre de nos erreurs donc, et des insuffisances constatées. Euh, D'autre part, pour ce qui constitue donc, euh, la circulation, nous avons aussi euh, donc, mis le doigt sur euh, euh c'est vrai l'opportunité immense qu'offre euh, l'autoroute Ilatouba, mais surtout avec le nombre de véhicules que nous allons recevoir en un temps record. Donc la question des, des péages hein, donc, qui pourrait constituer euh, un entonnoir et donc peut-être rendre vain euh, beaucoup d'efforts. De, euh, les points nodaux donc, touchent à l'eau nécessairement sur quatre points. L'eau donc de consommation du point de vue de la quantité, du point de vue de la qualité, du point de vue de la répartition spatio-temporelle. Donc euh, cela mérite donc euh, une réflexion sérieuse des solutions aussi très importantes et profondes, surtout un plan d'action que le service de l'hydraulique, en rapport avec tous ses partenaires, Maou Rahmati notamment, donc, euh, vont dérouler. Euh, par ailleurs, donc, euh, nous avons donc discuté aussi euh, de l'éclairage public à Touba. je crois que je disais déjà qu'il y a un slogan qu'on va s'approprier, donc que nous a déclamé Monsieur le directeur de cabinet du, maire de Touba Mosquée. Donc, euh, euh, il a dit tout simplement euh, qu'on souhaitait, en tout cas pour tous les grands axes de Touba et pour la corniche, il a dit zéro obscurité. Je crois que ça peut euh, euh, donc, en dehors de cela, toujours du point de vue de l'eau, donc, nous nous sommes penchés aussi sur la question donc, de la stagnation des inondations, surtout de la coexistence entre l'eau et les ordures, donc, ce qui peut poser un problème. En tout cas, le travail va continuer à travers les réunions sectorielles, donc qui seront animées à la fois par le sous-préfet par le préfet. Donc, à propos de tout ça, trouver donc des solutions. Donc, euh, je remercie l'ensemble des acteurs, tout le monde, vraiment. Donc, parce que ça, c'est un travail collégial. C'est pas une personne, mais c'est tout le monde qui a permis d'avoir donc ces résultats. bu baax di ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne di sant bu baax monsieur le préfet ak euh, adjoint yi fi teew yëpp ak euh, chef de service yëpp ci turu comité d'organisation ci njiitul Serigne Cheikh Bass moom Serigne Abdou Khader ñu amaan mbégte teew fii ci ndigalu Serigne Mountakha xalifa général des Mourides di waxaat ci li jëm ci li ñu bokk ñun ñëpp muy bisub lislaam àdduna bépp bokk ko ñu koy amale fii ci Touba bis moo xam ne bisu lislaam la waaye képp kuy nit ku ñuul rek am nga ci wàll mu yitte jumat mat sëkk yitte ñu toog fii di ci waxtaan ngir lu ko jëmale lu ko lu ko ngir lu ko mën a amal ci anam yu yu mu méngoo ak dayaayam ñuy sant bu baax ak a yaakaar ndax monsieur le préfet engagement bi mu ci am ci ànd ko ak ñu mu seq liggéey bi yëpp muy nit ku nga xam ne mat na kilifa ndax kilifa day jël ay responsabilité mat na kilifa ndax kilifa day jege aw askanam jege saw askan nag mooy jéem a xam lay seen yitte ak lay seeni jafe-jafe nga jéem caa taxaw la nga man loola it amul lenn lum ci ñéblu ndax mën na ko wax ci kanamu ñu ne mën ko wax fu ne kon loolu mel na ni askan bi xam na mission ci askan bi loolu ñu ngi li ci remercier bu baax di ko seere yépp loolu it nga ànd ko ak ñu ngi seqal région bi yépp rawatina département wu Touba département wu Mbacké safo kon loolu amel na la ci reconnaissance ndax tey képp ku nga xam ne yaa ngi doon administ dara ci administration bi dana am fi responsabilité ci liggéey ci département bi teewu nga ci réunion kenn ku ci ne li nga xalaat ci bis bu ñu bokk wax nga ci li nga li nga xam ne nañ ci ba abordé ay question yoo xam ne monsieur su ko fee abordé te loolu mooy quintessence su màggal bi muy culture te loolu néew na ay réunion yoo xam ne dañ toog di ci waxtaan kon mel na ne yow li mu tax a jóg xam nga ko donte ne eggu gunu fa di sant bu baax monsieur le maire comme ni nga ko waxee rek moom it xam na ni màggal gi màggal ma ndax ci dëkkam lañ koy defee dëkk bi dëkku Serigne ku fi ne nag dañ la ko jox ci moom dëkk bi moo lay wóolu jox la ko yow la ko la ko jox kon mel na ni. màggal gi yow yaay dalal gan yaay teeru gan loolu it taxawaay bi nga ci war a taxaw du doy mukk waaye nag xam nga ko yaa ngi ciy doxit li man kon du ñu lu seere koy mbokk yëpp xam ne yaa ngi ciy dox li nga ci man yaa ngi koy def li nga ci mënut it ñu ngi la koy xamal nongu nga ko yaa ngi ciy jéem li fa nga mën a yem loolu lu am solo la kon ci gàttal daal ñu ngi gërëm ñépp di sant ñëpp di xam leen ne ay xalaat yu rafet yu kawe jóge na fi jëm ci euh, service élevage surtout ndax ay innovation yu mag am wax nañ ko fi yoo xam ne bu nu yàlla dimbali woon bañ mën ko def dana am solo lool ci condition yi ñuy màggale ndax daf ci am loo xam ne mënees koo génne ci wér-gu-yaram mënees koo génne ci ak cet service social bi moom it am na fi ay xalaat yu rafet ñu ñu rafetlu ndax tuubaa bis bi bisu sant la Sëriñ Touba mooy sant la xeebul kenn kenn lam lam man ci def ko ci waaye nag bu dee dañuy indi ay ndimbal jëmmasi ko ci tuubaa ñu ko yeyoo bari na fi lool te néew nañu ci jot kon lijjanti ba loolu mën a yaatu faratal bari na it nag ay question yu mel noonu yoo xam ne xëy na temps bi mayuñu ko ñu mën koo ñu mën ci mën ci jaar waaye nañ xam ne tey assemblée bu am solo bu riche bu mën a jur ay njariñ lañ fi lañ fi def ah li des nag mooy ay projet rek la projet nag des koy dox des koy wax waaye des koy jéem a jëf ñuy ñaan rek ñi nga xam ne ñoom li ci ëpp ci ñoom la aju pour mu jëf jàpp nañ ne volonté jëf bi am na fi waaye nag mooy faaw des koy wut ca lu ñuy wut xamu kañ nga koy am def ko yitte ci waxtu yi daf ciy am solo ndax bu ñu jekkee ba màggal gi ñëw it ñu koy wut wala ñuy def ay appel d'offre du fi xaj faaw màggal gi day jàll rek mu des lu bare bare loo xam ne ci màggal gi la waroon dem ci du mat kon daal ñi ngi ñaan autorité yi ñu matuwaay yi ñu war a jël yépp ñu jël ko rawatina ci ndox mi rawatina ci éclairage public ndax ñaari aspect la yoo xam ne bu manqué bu ci manqué rek dana nëbb lu bari lu amoon ndax luy gaaw fes la ci gàttal kon ñi ngi sant ñépp di ñaan yàlla ci kàttanam di ñaan yàlla ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb borom màggal gi nga xam ne amuñu ku moom yaakaaruñu lu dul moom te mu tax nu mu ñu bàyyi sunu lépp ñëw fii ca sunu yitte ci moom wala suñu jëf jëme ci moom amuñu fuñ ko yemale wala fuñ ko war a defee fu fépp fu ko laaj rek jaral nañu ko ñuy naan yàlla dimbali ñu egg ci jàmm ci yàlla def ci ndam lu mosul def lu mu nu musul defal ñuy sant ñëpp di gërëm ñépp wasalaamualeykum wa rahmatullah une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer